de le faire. C'est ça la réalité. Mais nous n'avons pas le temps de nous compter parce que nous existons. Chers camarades, je vous, demande tout simplement deux choses. Cette mobilisation que vous avez faite aujourd'hui montre encore une fois que sonn ngeen sonn ngeen ah yéen a ngi bëgg a dee ah bëgg a dee boobu nag bëgg a dee boobu nag dama leen wax ci sa à l'entame de mes propos ne leen rien ne se donne sur un plateau d'argent amul lu ñuy maye li nga moom da koy jëli te malade bi ñu jox ko akam vous avez entendu tout dernièrement les gens parler de l'accueil dans nos hôpitaux et des urgences il faut qu'on en parle nous aussi l'accueil c'est quoi l'accueil ce n'est rien d'autre que l'éducation la personne doit être bien éduquée ku ñëw ci hôpital jaaxle su la nuyoo war nga ko fay salaamaaleykum maaleykum salaam docteur sangam lay laaj nga ne ko toogal mu toog nga jël kayitam demal ko wutal ko wan ko ñëw jox ko loolu mooy accueil ñun dañ ko war a def parce que tamit duñu nangu di laaj ba pare bañ ku ñu critiquer par rapport aux urgences j'ai une réponse à donner à l'État dans nos urgences vous voyez toujours des médecins qui ne sont pas de Sénégalais qui ne parlent même pas nos langues qui sont de la sous-région on a des problèmes on a des problèmes par rapport aux CS qui ne sont pas sénégalais et qui viennent ici pour devenir des médecins demain et rentrer chez eux. C'est pour cela que j'invite l'État à prendre en charge la spécialisation. Si l'État prend en charge la spécialisation, c'est-à-dire le coût de la spécialisation, c'est-à-dire tu finis tes 7 ans, tu veux devenir cardiologue, tu payes 600 000 francs d'inscription. Tu as, si tu n'as pas 400 000 francs durant l'année, tu ne pourras pas faire des, une, form Ce qui implique que chaque CS qui, par rapport à une spécialisation, demande presque 1 million de francs par an, pendant 4 ans. L'État prend ça en charge et fait revenir l'engagement pour dire j'ai besoin de tant de cardiologues, tant de neurochirurgiens, tant d'urologues, tant de pédiatres, dans le, dans le pays pour Matam, pour que Kolda, pour que les zones difficiles puissent avoir des hommes et des spécialistes dans ce métier-là. Et c'est ça qui est important. à relever le débat. prendre en charge la spécialisation. Si je vous dis qu'on a 90 cardiologues dans ce pays, si je vous dis qu'on a 150 gynécologues dans Les neurochirurgiens, on n'en a pas 20. Vous savez, on est millions. Il faut que les syndicats aient le courage de poser ces problèmes sur la table, de réfléchir autour de l'essentiel pour faire avancer le système de santé. Et par rapport à la couverture maladie universelle, nous sommes preneurs. C'est vrai, nous sommes preneurs parce qu'il y a parmi nous des gens qui ne peuvent pas se soigner. Il y a parmi nous des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder à des soins. Donc la couverture maladie euh, universelle, nous sommes preneurs et nous allons l'accompagner. Ce que l'on souhaite tout simplement, c'est qu'on qu qu puisse doter de nos hôpitaux d'un plateau technique fiable. Camarades, c'est ce que... Non, les stagiaires. Les stagiaires. yi du ma ci sori ñaar rek laay wax bu ngeen fi amuloon njariñ ñu dàq leen ko kër du fi toog kon ku fi toog rek am nga njariñ kon boucher nga trou nañu positiver c'est pour cela que je demande aux représentants du personnel une fois au conseil de poser le problème c'est-à-dire il faut que vous organisation syndicale que le représentant du personnel que vous puissiez travailler autour d'un problème sérieux la situation des stagiaires ku amul njariñ pédiatrie doo fa toog ku amul njariñ beneen service doo fa toog donc nañu fexe ba loolu yëpp ngeen waxtaan ci pour que ëllëg ñooñu ñuy wax dañ leen di ay contrat et tout que ngeen sécuriser leen leen jox leen li ñu moom et aussi que l'État nous aide par rapport à la fonction publique pour qu'il puisse quand même di jël ñenn ñi ñu dem au niveau de la fonction publique pour que kër gi enveloppe bi mën a rës tuuti donc yooyu moom moo fi nekk jàppoo leen nekk leen benn bu leen di jëwante bu leen dem bureau directeur di boole kenn bu leen dem bureau chef di kenn fii kenn mënalu fi kenn dara kenn ku ñu xas ba jox contrat à durée indéterminée yaag directeur bay yem directeur yi nag ay fonctionnaire lañu bu ñu toogee jeudi mercredi tey mën nañ leen a changé ñoom ñëpp te leen kenn mënu leen a changé ànd leen ngeen bokk ndey ngeen bokk baay xeex seen xeex bu leen gis ku leen di delloo ginnaaw bu leen ànd ak ñu leen di yàqal nekk leen benn li ngeen am di ngeen ko mën tant que ñu ngi dund on vous soutiendra tant que ñu ngi dund bu ngeen xewlee ñu ñëw te dinañu wax dinañu jëf te am nag ay pexe yoo xam ne dañu dañuy def nii di ko régler ci suuf merci beaucoup jërë ngeen am xam ne bu ñu waaw xam nga léegi dégg nga ma leen di wax ne leen du ñu nangu di laaj toujours te bañ ku ñu critiquer accueil yi am na problème dans nos structures accueil yooyu am problème daano nos structures dama bëgg ñu nit ñu am fitu fulla wax ci lan mooy accueil nit ki jóge na këram indi malade yem ci man mu ñëw nuyu ma ko mu laaj ma dégluwu ko wala ma nekk au téléphone loolu du yar nañ ci bàyyiwaat xel parce que la ma dégg ministre bi mu liggéey ci ne daf ciy dem vers des sanctions te loolu ay sanctions la yoo xam ne défendre ko dafa métti ma bëggoon nag ñun liggéeykat yi kenn ku nekk ci ñun bàyyi xel ni kenn koo accueillir yóbbu ko ba fi mu jëm ñaanam rek weesu na salaire. kenn koo accueillir ba yóbbu ko ci secrétariat bi yóbbu ko ci médecin bi médecin bi seet ko mu génn dem su ëllëgee booy wax dafa naan hôpitalu Thiès da ba ma fa demee wax dëgg yàlla toppatoo nañ ma benn nit rek mën na liggéeyal 400 personnes yi fi nekk nañu bàyyi xel ci accueil bi nañu bàyyi xel tamit ci ku ñëw xamul service yi loolu yëpp ci accueil la nekk mën nga ñëw laajte rajo doo ko xam tombe kenn nga taxaw rek bëgg ko joxe ñaan ko boo jàddee gauche jàdd droite jàdd kii non non taxaw ànd ak moom yóbbu ko ba ci rajo bi ne ko service rajo baa ngi nii sa collègue bu taxawee nga ne ko waxal ak maire bi rajo la soxla loolu dafa am solo parce que ku ci ne boo ko nattee ci sa waajur mbaa nga natt ko ci sa bopp mbaa nga natt ko ci sa doom rek su ëllëgee dañ ci mën a taxaw xanaa kañ urgence yi laa bëggoon état bàyyi ci xel ndax am na suñu urgence yi médecin yu fa nekk yoo xam ne duñ sénégalais ay CS lañu ay ñii ñii yeneen dëkk yi lañ dëkk dégguñu sa olof mënuñoo wax suñuy wax mënuñu wax ak patient yi te guddi lañ fay nekk moo tax ma ni état foofu damaa bëggoon lépp lu jëm ci wàllu jàngal doctor pour mu nekk cardiologue wala mu nekk gynécologue ñu tuddee ko spécialisation na ko nguur gi jël en charge su ko jëlee en charge daf leen di fayal bu leen fayalee ñeenti at indi engagement décennal c'est-à-dire da ak nguur gi ne man soo ma fayalee ma liggéey fukki at pour réew mi te foo ma yóbbu ma dem yooyu dafa am solo ci structure bu ñu ko defee dinañ am lu bari ci ressources humaines yi. Euh, Saliou Faye secretaire secrétaire général national du SAS syndicat autonome de la santé. indemnité de risque posé wuñ ko sur la léegi ñun indemnité de risque boobu ñun dañoo d'accordul ñuy yokk ay 10 000 inspecteur d'état yi bi ñu ñëwee fii si salle bi ñun secrétaire général syndicat yëpp ñoo fa toogoon dañu ne képp koo xam ni mënoo ko fay 50 000 risque bu ko defaral contrat moo tax am na benn lettre d'audience bu ñuy waaj a adressé président conseil d'administration bi 2016 bu risque bi demul 50 000 dama bëgg personnel bi am fulla am mat matuwaay taxaw xeexal seen bopp parce que aussi di yokk ay 10 000 10 000 am na ñoo xam ne ils sont à la porte de la retraite ñooñu du ñu mës a te nag defe naa loolu aussi métti na ñun bu ñu recruter premier mois boo ubbee bulletin de salaire bi day am cinquante mille risque am vingt mille francs suggestion fii nag suggestion bi moom mën a guñ ko wax parce que defe naa dinañ xeex risque bi en ba mu effectif buñ ko xeexee après doog a jublu si suggestion bi aussi ñun xamuñu ndax hôpital am na xaalis xamuñu ndax hôpital amul xaalis parce que nous ne sommes pas nous ne sommes pas impliqués à aucun niveau de gestion tey bu fekkoon hôpital balaa muy jënd compte daf ñuy woo en tant que partenaires sociaux ñu ñëw ñu ne ñu kat vraiment lii ak lii lañ bëgg def suba bu hôpital bi amul xaalis ñun ñooy doon seen porte parole woo personnel bi ne leen muñ leen kat hôpital bi amul xaalis waaye constaté nañ ni hôpital bi au plus tard le 2 lépp lu ñu war a fay personnel bi dinañ leen ko fay. financièrement ils sont bien nati léegi nag li des mooy personnel bi am fulla ñu àndandoo xeex ak ak yeneen personnel bi dellu si seen loxo